noo def. ñoo ngi sant bu wërëwër wër. ngi ci jàmm. waaw ñoo ngi am jàmm. naka liggéey beeg journée bi. waaw ñoo ngi sant yàlla alhamdulilah. sang bi dañoo ñëwoon tey laaj la nga noo gisee campagne geeg élection beeg violence yi am ci diggante bi. waa campagne bi ak violence yi ak yooyu violence moom mën naa ñàkk parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñi faral Macky Sall ak ñi faral Khalifa ñi faral Idrissa Seck ak ñun ñoo bokk suñu Sénégal. lu koy defar lan war wut waaye waruñu wut lu koy yàq xam nga ñi jiite nañ xam ne ñun duñ seen noonu ñun ñooñu yilif buñ jëkk violence yi ci ñoom la commencé nañ bàyyi violence bi ñu bàyyi violence yi ñun ñu fal Khalifa Sall ñu fal Macky Sall ñu fal Idrissa Seck lépp ñoo am ci ñoom kuy liggéey réew mi yow la ñu àndal képp koo xam ni yaa ngi liggéey réew mi yow lañu ñu àndal bu jàppee ne mi ngi liggéey réew mi li mu liggéey dëgg la nit ñi ñu ngi koy gis na gëm boppam xam ne gars yi dinañ ñëw votel ko xam nga keneen koo xam ne tam yaa ngi wax boo waxee loo convaincre nit ñi loo xamante ni nit ñi doy na leen day ñëw votal leen mais xeex beeg xuloo bi moom war naa mën a ñàkk quoi parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. léegi yow ban gis-gis nga am ci campagne gi ba mu démarré léegi violence yi si am ak coow leeg jàppal bàyyi gi boo doon conseil tey lan ngay conseil ñi ànd ak candidat yi. waaw man daal li ànd ak candidat yi ñëpp ñëpp ñëpp nag laay wax amul candidat bi wala bii ñun ñëpp laay dañu war a delloosiwaat xel yi bu baax a baax a baax a tey ji ki ngay jàppale ba tax ngay xeexu ba ciy faatu mën na toog ëllëg waxuma la nga gis ko de waaye nga wax mu dégg dong nan la jafe nga dem ci ak xel daal xam nga bañ a nekk di xët xët ban gaañ la ci buñ la ci gaañ da ngay perte kenn du ci bàyyi ay campagne am di seeti ji kenn ñëpp ci am nag ñëpp boo àndoon ak tey jii candidat bu mën a doon ñu rey la du bàyyi campagne am di ñëw naan la lay jaal si wala day dëj si xanaa après élection kon ñu war a xoolaat suñu bopp xam bu baax baax liñ bëgg xam na tam xam nga rayante bi amul solo fii ki fiy toog fal ñu ko pour ay rayante wala lii dañ ko fal pour mu defar réew mi moo gën xam nga ñu nekk fi naan dañuy xeex dañuy xuloo dañuy def lii loolu mën naa ñàkk képp koo xam ne daal li nga wax nit ñi doy na leen dinañ la votal jaru xuloo jaru xeex ki fi nekk bu fekkee ne li mu liggéey doy na doy na nit ñi xool nañ ko ba mu doy ñi danañ ko voteel keneen ku dul moom it bu fekkee ne wax na nit ñi loo xam ne moo leen gën a doy ñu jaru voteel ko mais jaru xuloo jaru xeex ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi di la laaj ban candidat ngay voté. man incha allahu rabbi Idrissa Seck président laay voté. jaajëf ñu ngi lay jaajëfee.